ñun itam euh, affaire bi laal nañu wax dëgg yàlla euh, alors laal boobu nag mu ñu laal ñun buñ si waxtaanee ñu wax ko li nga xam ne li ñun moom lañu ciy yëg xëy na dana ko yeggale ak foo xam ne fii euh, foofu la foofu la war a yegg ngir jéem a seet nu ñu mën a saafara li nga xam ne li moom la ñuy dund mu nekk ay tànk jàmm tànk kóolute ak tànk yoo xam ne wax dëgg yàlla du ñu mën def lu dul di ko rafetlu ndax lu am solo la ndax tey bu toogoon moom bureau am woo ñu dañuy ñëw waaye dafa taal otoom sol daalam ñëw seet si ñëpp waxtaan ak ñun loolu rek day wan ne fonk nañu fonk nañu te gëm na itam li li mu li mu yor te xam na itam li mu yor alors loolu la dañ koy rafetlu ndaxte nit ki moom bu la yëgee rek euh, war na la lépp parce que yëpp dafa am solo. comme fi mu nekk ni secteur bi nga xamante ne moom lañ nekk ni mooy secteur culture. bokna secteur yi gëna impacté manam yi bokk secteur yo comme secteur yëpp comme commerce bi ni mu impacté comme transport ni mu impacté culture bi itam non la impacté parce que culture bu ko déggé ñun ñi bu ñu foog ak ak yéeg sur seen kese la donte loolu bokk na si li ñuy def waaye dafa am ñeneen ñoo xamante ni ci loolu la ñuy yëngu képp koo xamante ne yaa ngi euh, technicien euh, képp kuy technicien de scène képp koo xamante ne yow yaa ngi si liggéey si audiovisuel caméraman preneur de son

mu gis tamit ne peut-être que ni bëriwuñu ay yenn moyens waaye lu mu néew néew lu mu tuuti tuuti ñun itam ñu ngi jéem a jàpp ci liggéey bi. ñu gis ñu échangé échangé nañu ci ci SODAV euh, nga xam ne ni que ne dafa nekk structure boo xam ne ne artistes ñoom ñoo ko moom euh, euh, mu nekk aussi entreprise boo xam ne ni que ne mbir mi laal na ko bu baax a baax a baax ndaxte suñu ay perception yi bari boo jugee ci affaire nu mu tuddati hôtel yeeg restaurant yi. ak li nga xamné ne que ne moom la ñu jëlee ci concert yi représenté na plus de 50 des activités des perceptions de la SODAV donc loolu yëpp tay amatul donc euh, moy que ni SODAV fu mu ni euh dafa dafa nek ci situation bu xawa critique te te loolu il faut que nguur gi taxaw ci bu baax a baax bo subvention yi nga xamné ni que ni ñu bañ ko ci faté ñu baña également faté subvention bi nga xamné ni que ni njëkkoon na président bi digoon ko artiste yi muy 3 milliards euh, bu normalement la waron ma depuis depuis ci ren gi donc bi nga xamné nek ni que ñu ngi ci jotagum pour le moment 300 300 millions mais euh, ñi ngi ñi ngi ñaan aussi ñu baral lolu pour mu mëna ki di ñaan aussi également que c'est une occasion également pour relancer dama ko faté wax ci nasaran affaire euh, affaire copie privée tay ki copie privée bu nekkoon nekkoon en œuvre dina dina dina dimbale bu baax état bi ci taxaw bi muy taxaw artiste yi. metti na lool ci artistes yi nak parce que boo nee artiste comme ci wolof lay wax. duma ci génne instrumentiste ak même ñu bokkul ci ci ci orchestre yi wax naa ko fi keroog nee naa boo jëlee exemple rek benn doomu géwal boo xam ne bi ci xew yi nga doon dunde wala nga am ay programmation yu ñu lay jox wala musicien boo xam ne bii nii yow guddi gu jot da nga daan dem ci boîte mi accompagner tel ou tel artiste ci club yi mu doon jouer boo yeewu suba ci ngay joxee sa dépense nga toog léegi amatoo loolu xamoo foo fooy teg fooy wëttee sa dépense ku ni méttiwul da nga dundul loolu donc métti na si artiste rawatina rek ñun ñi nga xam ne ñun ñooy responsable ñoo xam ni dafa bari ñu ñu yaakaar partout ci biir réew mi parce que li ñuy liggéey dootul Baaba Maal rek ak orchestre am dafa bari ñu tegu ci orchestre bu Baaba Maal ñoo xam ni loolu la yàlla dogal. tey suñu wax Sénégal. monde de la culture moy tax suñu wax Sénégal suñu waxee nak monde de la culture yépp la amna art plastique amna musiciens amna comédiens yi ñu bind livre amna na cinéaste yi dem ba euh, dama content torop ñëw déjà pour me remercier leen ci lepp lu ñu def taxawaay bu ñu def tay pour véhiculer ñom yépp japp nañ ci pour véhiculer pour mon art Sénégal ndax président de la République ne ma ma remercier leen pour loolu benen bi tam président laaj nañ suñu ministère de la culture pour que ñu défal ko benn memorandum ñu ko xalaatee ñu xalaatee jappalé suñu monde arti lolu daf nañu liggéey bo xamné bu am solo légui dañuy xaar comité d'arbitrage bi bo xamné ñu waxtaan su boba suñu pare si loolu dinañu ñëwaat di xol sous secteur yëpp tey tey tey dara yëngugul mais incha si ay moment yu ñëw sous l'égide du président de la république nañ mëna xol naka lañ mën a def